bokki jullit yi mbokki taalib yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dal leen ak jàmm fii si Daaru Koso Daaru Koso suñu teewaay li ko waral moo di comme niñ koy defee at mu jot yegg nañu si bis bi nga xam ne moom la ñuy amalee màggal gu mag gi nga xam ne moom la ñu amal fii si dëkk bu sell bii di Daaru Koso askan wi boo fu nekk ci biir réew mi si bitim réew ngir teew si si bis bu sell bi nga xam ne moom la fi fiy amal di màggal màggal gi nag ren dëppoo ak yilla ju am solo mu di forcé boo xamante ni bii mbokk yi nga xam ne ñooy taalibe yi ak jullit yi teew si dëkk bi sell bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo jokk si dëkk bi nga xam ne moom di Daaru Koso mbég la ñu àndal si inauguration officielle jumaa ji nga xamante ni bii amal nañu ko si bisub màggal gi jumaa ji nag nekk lu mucc ayib yoo xam ne liggéey bi rafet na lool waaye yem na ba it nekk yi si bépp taalibe looloo waral ñoom ñëpp àndandoo teew si inauguration officielle bi nga xam ne amoon nañ liggéeyub jumaa ji nag mu ngi doore woon si sëñ ma moor Koso mi nga xam ne moo ko tàmbale woon ginnaaw ba ki ko fi wutu daat koy yeggalee ba jamono ji mu yemb ñu di ko ñaanal suñu boroom yokk ay leeram te taas ñi si barkeem jullik àjjuma gi nga xam ne nag si lañ doon ubbee jumaa ji fii ci Daaru Koso fekkee na ab teewaayu wàkki sëriñ Tuubaa ñu bëree bëri am na gën a ràññeeku sëñ Mahmadane mu sëñ Abdoulaat sëriñ Mamour mu sëñ fàllu sëriñ Basirou Abdou Khoudos mi nga xam ni moo bawoo si Daaru Musti ñëw fekk si bis bu tedd bi nga xam ni moom lañ fi doon amal lii nag di wane ni waa kër sëriñ Touba yëpp teew nañu ndax jëmm yi bu ñu teewee mel na ni waa kër sëriñ Touba yëpp fekk nañu bis bi. السلام sant na ma ñëpp dégg may sant na ma tert goo xam ne ñëpp dégg na ko waaye may sant naa ko te maa ngi koy ñaanal rek te xam naa lii lépp moom néeg bee ma sëñ lan Mbàkke defaral ba kër yëm ña ma gannaaw na ngaa bëgg ko sa rek ko yëpp dafa lëfam néeg sëñ Maxtaar ñëw na fi sëñ sëñ laat ñëw na maam Thierno ñëw na fi ku ci toog ne ma sant nañ sëñ daan ndax nun la ko defal waaw nañ ko ñaanal rek mu gudd fan jërëjëf magal ni siyaara bis bi nekk na yilla ak fursa ci mboolem taalibe yi ak seeni sëriñ ñu mën a jokkalante waaye tamit di siyaarante gën a seen coloré ak seen mbégte ci ñoom looloo waral nag ñu ànd ak yéen dem ci mboolem bërëb siyaar yi nga xam te ni bi ñoo fi nekk ànd koog waa kër sëñ Mahamadan gi nga xam ne ñoo fi teew ñépp ak mboolem taalibe yi Mame Mor Kosso mu sëñ Mahmadan fekk sëriñ Mame Thierno mi nga xam ne moo di xalifa bi moom it mu dalal ñu tatagal ñu ànd ak mboolem taalibe yi nga xamante ni bi ñoo fi saare ci bis bu tedd bi ci jotaay bu tedd bi di ngeen fi gis waa kër sëñ Mame Mor yëpp ñu teew ànd ak mboolem taalibe yi di saafoonte ànd ak mbégte mu sax dàkk ànd ak bis bu tedd bi nga xam ni moom la amal fii ci Daaru Kosso yeewoo si biir réew mi ak si bitim réew ngir fekk si bis bu tedd bii ñoon ngeen ko gisee mbooleem turandoo sëriñ Mamoor yi ñoom it teew nañ ci bis bu tedd bii def si pàcc bu am solo ak liggéey bu mucc ayib boo xam ne bii ñëpp seetloo noon nañ ko gisandoo ko noo ne ko kàddu yi nga xam ne moom la seen jëwriñ yëkkatee di ko seet ko àndeek sëriñ si foofee si bërëb yi nga xam te ni bii daanaka ay góor lañ fa gën a nemmeeku ànd nañoo ak yéen it ba léegi si pàcc bi nga xam ne fi la soxna yi féetee ànd ak njabootuk sëriñ Mamor gi yëpp ak sëriñ Mahmadan ñoom it ñu am liggéey bu am solo boo xam ne amal nañ ko si bis bu tedd bi salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di ziar bu baax comme niñ ko doon tàmbali liggéey ba léegi rek ñoo ngi fii ci kër Serigne Mamor ci kër Soxna Bintu fi mu féete ci njabootuk sëriñ Mamor ñu nekk fi di def ay ziar ba tey fekk Soxna Khady soxna mi nga xamante ne moo fi nekk ak mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk lépp ci bisu màggalu Koso gu tedd gi di ñaan suñu borom jàpp ñu ban teewee koy at yu bëree bëree bëri ñu yàgg koo taxawe ñu yàgg leen fee fekk bu baax a baax te suñu borom may na tawfeex koo xamante ni bis bu dikkatee rek dañu mën a dikkati ci kanamu soxna si def ci ay ziyaar bu baax suñu borom soxna si suñu borom ñaan mu ngi guddal aw bu baax a baax a baax kon soxna si baax na nga defal mbokk yi ñaan rek nu tàggoo ba déwén incha allah màggalug Daaru Koso muy bis bu am solo lool fees dell ak njariñ di ñaan suñu boroom nangu ñu lépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko fi di sant bu baax it mbokku taalibe yi nga xam ne ñooy bàyyi xel seen seen YouTube bi nga xam ne moo di Tawfekh Production di leen jox dig daje ba déwén ak jàmm incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 jaa